loolu waxan na ko ca gannaaw fa mu doon tuddee julli juróom saa yoo jullee julli farata ba noppi rek taamu nañ nga def noonu wax subhanallahi fanweer a yett wax alhamdulillahi fanweer a yett wax allahu akbar fanweer a yett mottalee téeméer ba laa ilaha illallahu ba na mu daanoo daa am ñu jiital nag allahu akbar gannaaw bi ñu defee subhanallah daal di mujje alhamdulillah waaye ñett li gën a siiw daal mooy boo defee subhanallah nga teg ci alhamdulillah bi ci nag allahu akbar waaye lu ci nekk nag soxna ci addis ni ki bu ko andee fii waxindal xalaayi fa wana wa taqulu da nga wax ne alhamdu xeeti cant yépp lillahi ajee la ñeel yàlla allasi yàlla mi nga xam ne rasaqa nii wërsëgali na ma laddataxoo bànneexam wa axrajate mu génne xan yi walis ma mashaqataxoo coonaam ba wa abxaate mu desal wa abxaate mu desal fii gis mi ci sama yaram quwataxoo kàttanam nga maanaam boo duggee ci wana ba génn faj sa soxla ba noppi sopp nañ nga sant yàlla ne suñu boroom mën day sant naa la ndax lii baa koy lekk baa baa koy naan danga ko defal muy lu neex ci man ba mu demee ba rees itam ba coono bi rek des ci nga génneel ma ko te teewut nga may ma ci kàttan goo xam ne ba tey maa ngi koy dese sopp nañ nag balaa dugg ci urmbal ba ko andigul waaye mu wax allahumma inni a'udhu bika min al xubusi wal xabaisi am nañ cey dolli الرجس النجس الشيطان الرجيم لولا المقدمة الهجية عندي ونكو موي يالا يالا ما مسل تي شيطاني غوري اك شيطاني جيجيني وتتحوض دغا مسلو من كل شيء تي مت مبر تخافه مم دنجو راغال وحينما تحل اك ساوي واتch بموضعين تي ابيرب او تجلس ولا ngay tok بمكان تي ابيرب او تنام ولا ngay nelaw fi ci ابيرب yéen lii mu lay bëgg a wax nii ñaani muslukaay la moo xam na ngay dox di dem moo xam na ngay bëgg a toog ci béréb moo xam na nga fay bëgg a tëdd nelaw moom daal lii des na ko ñaane wax ni ahondu danaa muslu bi kalimaatillahi ci baati yàlla yi atta maati ya di way mat min sharri ma ci ayu la nga xam ne xalaqa bind na ko ahondu bi kalimaatillahi tammaati min sharri ma xalaq ñaan la bu ñu fonk danga koy baamu yett yoon saa yoo ko waxee mooy yàlla maa ngi ñaan ci baati alquran nga musal ma ci ayu lépp li nga sàkk wa min at-tahawudi bokk na ci muslu an taqoo la nga wax ahondu danaa muslu bi wajhillahi ci jëmmi yàlla ji alkarimi ji aji tedd wa bi kalimatillahi ak ci baati yàlla yi attaamaati ya di way mat allati ya nga xam ne laa yu jaawisuhunna du leen mën a jéggi barun jenn aji baax wala faajirum di caageenu ab saay-saay wa bi asmaillahi ak ci turi yàlla ya alxusna yi daway rafet kulliha mboole seen maa xalimtu la ma xam min xaa ci ñoom wama ak la nga xam ne lam alam xaw ma ko maa ngi muslu min sharri maa ci ayu lépp li nga xam ne xalaqa bind na ko wa daraa te mu bind ko wa baraa te mu bind ko ñetti baat yooyu ñoo bokk firi xalaqa daraa baraa wa min sharri maa ak ci ayu la nga xam ne yenn si dana wàcc min asamaay tukkee ci asamaan wa min sharri maa ak ci ayu la nga xam ne yaaruju dana yéeg fiihaa ci asamaan wa min sharri ma ak ci ayu la nga xam ne dara ab bind na ko fil ard ci suuf wa min sharri ma ak ci ayu la nga xam ne yaxruju dana génn min ha tukkee ci suuf wa min fitnati leyli ak ci fitnay guddi wa nahaari ak bëccëg wa min tawaariqi leyli ak ci wayrañaani guddi wa nahaari ak bëccëg illaa taariqan ndari aji rañaan yatruqu te dana rañaan bi xayrin ako yow daaneele yaa raxmaanu yow yërëmikat bi bokk na ci ñaani muslukaay yi nga wax ne saa boroom maa ngi lay ñaan ci sa jëmm ju tedd ji ak ci sa baat yu mat yi nga xamee ne ku baax ak ku bana ci yam kenn mën leen a jéggi ne baati alxuraan yu tedd yi maa ngi lay ñaan it ci darajey sa tur yu rafet yi la ma ca xam ak la ma ca xamut maa ngi ñaan nga musal ma ci ayu lépp lépp li nga sàkk musal ma ci ayu li wàcc bàyyi ko ci asamaan ak ayu la yéeg ci asamaan musal ma ci ayu lépp loo sàkk ci suuf ak lépp loo sàkk te muy génne ci suuf musal ma ci fitne guddi ak bëccëg musal ma ci musal ma ci mboolem xew-xew yi bette lu may rek xew-xew bi betti aku yiw daan leen nag yaa rahman wa yuqaal def na wax fi daalika ci loolee aydan ba tey wa min charri kulli daabatin ak ci ayu jëpp daaba rabbi yëj sama boroom aaxifum aji jàpp la binaasiyatiha ci cembaanam nga wala ci kawaru jubam nga inna rabbi naka sama boroom xalaa siraatin nekk na ci aw yoon mustaqimin wu di aji jub ba tey des na dolli ca muslu googee wa min charri kulli daabatin ba nim daanoo ci xalaa siraatin mustaqimin mooy sunu boroom musal ma ci ay jëpp daaba joo xam ne xam naa ne yaa ko nag daaba ju ne foo ko jëmal rek lay jëm li wax ne ay jëpp daaba joo xam ne saa boroom a jàpp ci kawaru jubb ga day def jëmm boo ne sëq ci kawaru jubb ga da nga koy not da nga koy ëpp doole foo ko noddi foo ko ñoddi jëme rek mu jëm foofa kon da cee jublu musal ma ci ay jëpp daaba joo xam ne xam naa ne moom yow rek yaa yore mbiram foo ko jëmale fa lay jëm wa yustahabu def na sopp li man ñeel koo xam ndaxala tàbbina man si lahoo këram añ yàqoola mu wax macha allahu lu soob yàlla rek am laa quwata amul benn xeetu kàttan illa billahi ndari mi nekk ci yàlla sopp nañ boo duggee ci sa kër te fekk fa ñenn nga njëkk a nuyoo na nga daa nuyoo asalaamaaleykum fekkee fekk fa kenn nga wax assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin ba noppi nag dolli ci li mu wax macha allahu la quwata illa billah wa yukrahu def na sip alxamalu jëf te mooy liggéey fil masajidi ci jàkka ya min xiyaatatin ci ñaw wan xëya ak lu mel ne ñaw nee na jàkk dañ ko defar ngir jaamu yàlla kon nag daa ñu sip nga di fa liggéey benn liggéey ci kaw sax liggéey ba du ko taqal du xatal ña fay julli waaye bu dee taqal jàkk ja mbaa muy xatal ña fay julli daal di araam waaye nag bu fekkee ne moom du xatal ña fay julli te du fa taqal dara dara daañu ko sipp wala yaxsilu du raxas yedday yaari loxoom fii ci jàkk wala yakul te du lekk fii ci moom illa misla shay ndare kem dara alxafiifi lay aji woyof ka sawixi niki suusal wa nax yi ak lu mel ne moom wala yaqusu te du jàmp fii ci moom shaaribahu ay naanoom muy ay mustaasam wala yu qallimu te du leewi fii ci moom aldufaarahu ay wexam te na jàkk suñu sufaa raxas ay loxo mbaa di fa lekk dara la loo xam ne mën naa taqal jàkk ja xanaa lekk gu ñàkk solo goo xam ne du faral di taqal foofa ni ki suusal wala miskit wala tàngal yu demee noonu te tàngal sax buñ ko xoolee xollit yooyu ñu war ko génnewaale ba tey boo nekkee ci biir jàkk bul fa watu ni ki war sa bopp bul fa jéem a jéem ay moustache bul fa jéem a léegi ay weex da cee teg nag wa in xassa ndéem jemp na aw xàllama wala mu lewi axasahu mu tiimale ko fii saw bi ci malaanam wax ne wow day wane ne bu fekkee day jemp ay mustaasam mbaa muy leweku foofu ci biir jàkka ja na ko tiimale ci malaanam ba dara bañ faa ruus waaye daam yax boo xam day bind wa in axasahu ak doonte tiimale na ko fii saw bi ci malaanam maanaam wane ni moom dañuy bañ biir jàkk nga di fa léegi ay we mbaa nga difa jàmp ay moustache doonte sax yaa ngi koy tiimale ci luy teemu àgg ca jàkka ja wala yaqutulu du sañ rey fii ci moom xamlatan aw teeñ wala burxoosan du caageen aw fel yene bi jàkk sib nañ nga difa rey aw teeñ mbaaw fel te sax teeñ yi bu fekkee boo ko reyee ba noppi da ngay bàyyi mboxos ya ci biir jàkka ja di daal di araam ndax mboxos yi teeñ yi sobe la ndax teeñ dafa am deret ju sotti ko fel yi itam bu fekkee boo reyee fel yi day bari te it foofa ngay bàyyi mboxos ya dañ koy daal di araamal ndax dañuy bañ loola ñaawal jàkka ja urxisa yàlla ma leef na fii ma biitil xurabaa yi ci panaanu doxandéem ya fii masaajidil baadiyati ci jàkka yi àll jamono yu njëkk ya àll bi daawul am foo mën a luye wala hôtel mbaa dara nga xam ne boo fa dee doxandéem foo fanaan da lay jafe yooyu jamono kon daanañ maye ku ci doxandeem rek mu fanaan ci jàkk ja day mel ne kon bu dee taax yi nga xam ne am na foo mën a luye wala am nay hôtel boo dee doxandeem itam doo sañ a fanaan ci jàkka waaye wax ji gën a wóoru mooy bu fekkee ne amoo loo fay hôtel amoo loo fay ab néegu luyaas kon da nga sañ a fanaan ca jàkk ja ñëw ci jàng alquran wala yambaxi du yell an yaqra muy jàng fil xammaami ci baytu xammaam ilal aayaat ndari ay laaya al yasirat yu aji néew wala yuksiru te du ko bari fépp foo xam ne bérébu sobe la mel ne sangukaay yooyu xewoon ci lay jamono boo fa duggee doo sañ a jàng dara ci alquran wala boog ay laaya yu néew nga fay sañ a jàng waaye doo fa sañ a jàng lu bari ci alquran kon daal bépp bérébu sobe rek bul fa jàng alquran ba boo fay jàng alquran nga jàng fa ay laaya yu néew wa yaqrawu dana sañ a jàng arraakibu aji war wal mudtajihu ak aji tëdd wal maashi ak aji dox min xariyat bàyyi ko ci dëkk ilaa xariyat jëm ci ab dëkk nee na jàngal xuraan moom moo xam na ngaa war moo xam na nga doxab tànk moo xam na ngaa tëdd moo xam na ngaa jëm ci dëkk bàyyi ko ci dëkk lu ci mën doon rek mën ngay jàngal xuraan ndax dañoo digle tudd yàlla saa yoo toll te jàngal xuraan moo gën a màgg ci xeeti tudd yàlla yi wa yukrahu def na si daalika loolee lil maashi ñeel aji dox ila suuqi jëm ca marché ba su fekkee da ngay jëm ca marché ba nag te tamit marché bu taax nga xam ne yoon wi day bari ay nit bari ay kàddu bari ay yëngatu daañu sib nee nañu ngay jàngal xuraan ndax kon doo mën a teewul doo mën a seetantal waaye bu doon marché àll moom nga xam ne du bari ab jaxasoo ci yoon wi xëy na du am lu lay gàllankoor kon da nga mën a jàngal xuraan te fekk nga jëm ca marché ba waxatu xëy na waxeef na inna zalika naka loolee waasiwun aji dagan la lil mutaallim ñeel aji xamlu li ñu waxoon léegi bu dee ci dëkku taax ba ngay dox jëm ca marché ba ñooñu bu jàng alxuraan ndax teewlu ga ak seetantal ga da lay jafe mu ne am na ñu ne bu dee koo xam day jàng moom alxuraan bëgg koo mokkal ci misaal kon daañu ko may moom mu jëm ci marché ba ba noppi di jàng. waaye nag waxat xii la waxees na rek la daa mel ni moom itam sib gi daal moo gën a wóor wa man xara aku jàng alquran alquran fii sabihin juróom-yaari guddi fa daalika loolee xasan aj rafet la nee na soo dee wàcce alquran juróom-ñaari fan ñu ne moo xam da nga koo def juróom-ñaari xaaj bis bu ne nga jël benn xaaj moo xam daal noo ko defe waaye juróom-ñaari fan ñu ne nga wàcce kaamil bi loolu lu ñu sopp la ndax ñu jiitu woon tey gaa yu baax daanañ ko def wattafahumu waaye dégg-dégg lu ga ma xaqillati xiraati ànd ak néew jàng ga afdalu moo gën waaye di jàng-njàng mu teey te di ko seetantal ndax nga dolli ko ca xam daal moo gën ndax yenn laay joo seetantal moo gën wàcce kaamil bi yépp te seetantaloo ko waru yee nett leef na ne am na nabiya naka yonante bi alayhi salaam lam yaqrahu masu koo jàng fii aqal ci lu yées min salaasin ci yetti guddi yonante bi nga xam ne ci moom la yàlla wàcc alxuraan mu gën koo dégg ñëpp teewul da ko daan teeylu ba mësta jekki-jekki rek wàcce ko benn yoon ci benn bis mbaa ñaar lu néew néew daan am ñetti fan door àggale kaamil bi ñu wax ne yonent bi am njàngam dafa yeexoon lool nga xam ne daal da koy teelu di wax araf yi benn benn njàng mu leer a leer mu teey teey wa yustahabu def na sopp lil musaafiri ñu aji tukki ay yaqoola mu wax nga rukkoo bi fa waram nga ne bismillahi maa ngi waree ci turu yàlla allahumma yow buur bi anta yow assaahibu yaa di àndaale ba fi safari ci tukki ba wal xalifatu tey wóotaat fil ahli ci ñoñ ña allahumma yow buur bi indi naka man ahudu danaa muslu bi ko ci yow min waa saa is safari ci ñag-ñag yi tukki mooy tartari tukki wa kaabatil munqalabi ak njàqarel walbatiku wa suu il mandari ak ñaaw xool fil ahli ci ñoñ ña wal maali ak alal ja boo dee tukki bay war sopp nañ nga wax ñaan googu ne suñ boroom yow day yow laay àndal ci tukki bi te it yow laay batale saa waa kër maa ngi ñaan na nga musal ma ci lépp luy tartari tukki ak wëlbatiku wëlbatiku bu naqari ak di gis dara lu muy naqari ci sama waa kër mbaa sama alal yooyu yëpp daal musal ma ci wa yaqul dana wax arraakib aji warja ida stawa ndéem ñamoona xala daabati ci kaw daaba ja subhaana lafi tudd naa sellug yàlla mi nga xam ne saxara tàggat na la naa ñeelu haada lii wa maa kunnaa tu nekkunu woon muqriniina di way atam lëhoo ñeel ko wa innaata naka nun la munqaliboona way walbatiku lanu ilaa rabbinaa jëm ci suñ borom bëgg nañ boo waree ci kaw daaba ji ba jekk nga sant yàlla ne tudd naa seelu buur bi nga xam ne moo ma tàggatal lii baa man koo war te ëpp ma doole fuuf moom yàlla rek moo ko tàggat ba mu nooyee nii te it ñun ñëpp ci moom yàlla rek la ñuy dellu wa tukrahu def na sib at tijaaratu yaxantu ilaa arawlin xaddu wi jëm ci suufas noon ya wa bale di suudaani ak réewum ñu ñuul ña sib nañu muy dem ca réew yi yéefar ya di ca yaxantu ndax dañuy bañ loru ci bakkanam mbaa ci alalam mbaa ñu moyloo ko yàlla yi demee noonu moo tax sib nañ daal dem ci réew yéefar ya di fa yaxantu ñu ñuul ñi itam bañ nekkagul ay julit mbaa boog ba tey sax bu dee béréb boo xam ne ñu ñuul ña fa nekk nekkuñu ay julit daa ñu sib julit bi di tukki foofu rek ngir yaxantu bëgg alali àdduna dong ndax ndekam yooyu duñu ay julit lor ko mbaa yàqal ko dara ci diineem day yomb waqaala waxoon na annabi yonante bi alayhi salaam asafaru tukki xitxatun ab dog la min alxasaa bi ci mbugal ku baax ki nee na woon tukki day moom daa mel ne aw dog it la ci mbugalum yàlla ndax nam ko waxe woon tukki day tax doo nelaw na nga bëgge doo lekk na nga bëgge doo naan na nga bëgge addis ba jàll na wax ni sax kon ku ci dem ba sa aajo faju rek daal di gaa wàññiku ñibbisi am la ko daaneele wala yam ndox yi du yell am tu saafira bu tukkee almaratu jigéen ja maa xayri di mahramin ànd ak kudul boroomub araamante min xaa ca moom safara yow min tukki benn bëccëg wala nit ak genn guddi fa ak sara topp lu ko ëpp jigéen sañu te tukki tukki bu mat bisub lëm te àndut ak góor goo xam ne ab araamanteem la mooy góor goo xam ne araam nañu sëy ñoom ñaar ndax jege guñ jege ci wàllu mbokk wala ci nampaale wala ci koromaale illa fi hajjil faridati ndara ci ajug farata xaasatan dong fi xawli malikin ci waxi malik fii duf xëcc ci ay àndandoo ma amoonat ñu duñ moolu lu may na nga xam ne jigéen ji day aji aju farata te amul ak araamanteem bu demee noonu kon bu fekkee ña muy àndal ñu baax lañ ñu ñu wóolu lañu kon du ñu araamanteem sax waaye mën naa ànd ak ñoom mooy wa in lam yakun ndéem nekkut ma xa ànd ak moom zo mahramin borom bu araamante te dalika loolee laxaa ñeel na ko ndegam aju farata la rek moom te amul ab araamanteem bu góor bu mën a ànd ak moom rek kon ci waxi Maalik moom mën na ànd ak ay jullit yoo xam ne ñu baax lañu ñu ñu wóolu lañu ñàkk daa nekk araamante ci moom du ci wàññi dara baabu li ab buntu la fit taxaalu ji ci saa farawo wa zikri ruqaa ak tudd ay mocc wa téerati ak gaaf wa nujoomi ak biddiw ya wal xisaay ak tàpp wal wasmi ak ñaas wal kilaabi ak ay xaj wa rifqi ak ñëwante bil moom looki ci ko ñu moom day wax ci buntu bii nag saafarawu ndax li ku baax ki wax ne yàlla jàngoro ju wàcc rek wàcc na la koy faj muy garabam loolu tax na kon saafarawu sañas na ko lu dagan la ak lu mel ni xeeti mocci léemoog lu gëg yooyu ak gaafal dara ak lu aju ci wàllu biddi lañ ci sañ a xool ak lañ ci sañ ta xool ak lu mel ni tàpp ak jur mel ni tàpp am xar wala bëy yu demee noonu wala ñaas ab jur ndax wutoo ko xàmmikaay ak wut ab xaj ndax sañes na ko wala sañes ak lu ci aju ak jamono yi jaam amee bu la yàlla dénkee ab jaam nga ñewante ko bañ koo teg lu mënut yooyu la bëgg a wax ci bunt bi wala ba as aayut bil istisqaay ci ak mocc minal xay ni ci bët waxee riha ak lu dul bët ñu wax lugg wala mocc nee na mënees na ko moo xam kooko bët bu aay moo ko dal wala jaan moo ko matt wala jiit moo ko fett luñ ci mën doon rek mënees na ko lugg des na ko defee fatiha des na ko defee yeneen baat yu bari bari ci alquran wala ci hadis yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañoo wute nag ci lugge ay baat yoo xam ne xamuñu lu muy tekki am na ñu ne am na ñu ne baat yoo bu ñu xamee ne sax naka jekk yàgg nañ koo jëfandikoo muy am njëriñ kenn du ko sañ a jëfandikoo ndegam xamuñu lu muy tekki ñenn ñu ne ndegam yàgg nañ koo lugge muy am njëriñ rek te seetlu nañ ne am na njëriñ loola kon doy na ñàkk a xam la muy tekki du ko tee baax waaye daa mel ni maali moom ni waxee daa bëgg daal baat yi ngay mocc mbaa yi ngay luggee muy alquran mbaa addis mbaa yeneen baat yoo xam ne xam nga la muy tekki ndax bañ muy ay baat yu tegtale ak kéefar toog xam wattaxawu fi ak léemu wattaxaalu ci ak saafarawu wa shurbi dawaay ak naan saafara nee na manes nay léemu rawante na léemoo fàllaxeeg naasi ak lépp lu ñuy léemoo ak faju jëkk jàngoro ji yàlla teg nit rek man ne sabablu la koy faj ak naan garab loolu bokk na ci paju mi wal fasti ak gàjj gàjj mooy dagg ak sa diit ndax génne deret ju bon ja nga xam ne moo ca nekkoon wal kay ak luggu gi wax lugg rek nag waaye jubluwuñ ci luggu mocc lugg gi mooy lakk ko ci sawara alxarqu binnaar lañ jublu ci alkayu kon daal fa gaañu gaañu ba nekk wala fa jàngoro ja nekk manes na koo faje lakk ko ci sawara wala xijaamatu nàmputalu xasanatu aj rafet la nàmputalu daa bëgg wax ne lu ñu sopp la des na koy fajoo bu baax moom nag naar yoo ko daa ëpp def fii moom wala kuuf lu tusngalu li tadaaw yi ngir saafarawu jaay sun aji dagan la di rujaal yi ñeen góor ña te wax wa moom min siinati nisaa yi bokk na ci waajtaayu jigéen ña tus nga lu moom góor mën na koo def bu fekkee daa jubloo faj ay bëtam waaye du ko def na ngir taar taarlu ndax tus nga daa bokk ci waajtaayu jigéen te lépp loo xam ne waajtaayu jigéen la rek góor du ko sañ a def di ci nuroonteeg jigéen ndax araam na ci jigéen muy nuru nuru lu góor waaye araam na ci góor itam muy nuru nuru lu jigéen wala yu taxaale ju def lu saafarawoo bil xamri ci sàngara wala bin najaasa du caagéenu ci sobe wala bi maa du caagéenu ci loo xam ne fii nekk na ci moom maytatun medd wala bi shay'in du caagéenu ci dara min maa ci la nga xam ne xarama araamal na ko allahu yàlla subhaanahu sorelal naa ko lépp leelul ci moom wa taxaala te mu kawe ab julit bu dee faju day fajoo loo xam ne lu yàlla daganal la waaye araam na ci ab julit muy fajoo lu yàlla araamal lépp luy sobe rek mbaa lu koy nuru mbaa lu araam rek ab julit du ko saña fajoo sàngara mu tudd kenn sañu koo fajoo mbaa lu ko nuru teewul nag bu fekkee dafa fot te amul lu jàllale fot ga kon nee nañu mën naa naan sàngara jàllalee ko ko ne sax lu mu mar mar mar kenn du ko may mu naan sàngara ndax dañ ne sàngara day yokk aw mar waaye du dindi aw mar ne bu doon dindi aw mar sax yoon may ko mu naan ko bu maree te gisut leneen wala ba sa ayut bil ittiwaay ci ak luggu wu ruqaa ak ay mocc bi kitaabillahi ci téereb yàlla wi wa bil kalaami ak ci jëpp wax ak tay bi jëri aji teey ittiwaaw bi nga dégg mook alkay yu bële mooy suñoo yemoo maanaam mooy fa jàngoro ja nekk ñu lakk ko sawara faje ko ko loolu mooy iktiwaaw mooy kayu bi nga weesu avocat bi ci teg nag moom mooy mocc wala lugg di tari ay baat moo xam alxuraan lay wax moo xam lu bokk ci addis moo xam yeneen wax yu teey rek baax na waaye daal la gën a wóor mooy na xam maanaam baat ya muy wax wala ba sa ayut bil mahaadati ci ab téere toxallaxu mbir moom def na ko takk wa fiihaa te nekk na ca moom alquran alquran takk ab téere boo xam ne alquran lañ ci bind doonte alxuraan ja bari na waaye aw nga ko mbaa ñaw nga ko ba nga xamee ne jëmm ja làqu na kon loolu dagan na dara nekku ci mën nga koo dugaale wa nag mën nga koo tëddaale bu taqee sobe rek nga raxas waaye nag bu xasee am baati alxuraan yu bari doo ko mën takk rek noonu te ëwoo ko mbaa nga ñaw ko ñi ko ñi ko njul yi defee léeg-léeg téere ñu leen di jox ñu koy def ci lu mel ne bantu xar rek lu mel noonu duñ ko mën a yóbbaale wanag wa isa waqaxa ndem tàbbin alwaba u mbas bi ardu xawmin ci suufus aw nit fala yuqdamu deful dikk alayhi ci moom wa man kaan koo xam nekkoon na bihaa ci moom it fala yaxruju du génn firaaran ngir daw minhu ci moom ku baax ki daa aaye woon loolu wax ne bu fekkee ne tawat ji wàlle daa xew ci béréb ku fa demutoon bu mu fa dem ku fa nekkoon ba tey bu mu génn ngir di ko daw moo tax nag kon su fekkee béréb daal am na tawat ji wàlle ku fa nekkoon toogal rek te yaakaar yàlla musal la ca koo xam ne koo fa woon nag boo fa ñëw jege dara xul mu dal lépp coobar yàlla nekk waaye nag ngir moytu daal moom dégam nekkoo fa woon rek te loolu am na fa bul fa dem nee nañ aaye googu aayeg sib la te it génn ngir daw bas moomee moo aay waaye am soxla tax laa génn kon aayut dañoo wute ci ndax al wabaa bi ñuy firee mbas ak ak taaxoonu bi ñuy firee mbas ñoo bokk fii àtte wala déet ndax ak taaxoonu moom dañ koy firee mbas rek waaye tawat ji doy waar la ndax day def ay góom yaram wi toj kooka di wàccu xolam di firfiree ka tëf tëfi moom tawat ji doy waar la waaye nag yàllaa ko tegoon gaa yu baax yi ba wax ne ni saxaaba yi li ci dee ci tawat ju mel noonu mat na ñaar fukki junne juróom ci atum fukki juróom-ñett ci gàddaay gi alwaba u nag yi firee mbas moom mooy jëpp tawat joo xam ne bu amee rek dana bari ñu ca faatu di ki xeeti choléra yi nga xam ak yi demee ne moom loolu moo tudd alwaba u ak taaxoon nag moom mooy ji ma waxan léegi wa qaala waxoon na ar rasul yonante bi alayhi salaam fi chu bi ci gaaf ne in kaana ndem am na day fa fil maskani nekk na ci ab dëkkuwaay wal marat ak jigéen wal faras ak fas nee na yonante bi daa waxan ci addis ba ne gaaf day bu amee itam ci dëkkuwaay lay nekk wala jigéen wala fas am nañu ko firee ne bu dee ci dëkkuwaay ba lay gaafam mooy ñëw fa dëkkal doon dëkkandoo yu bon bu dee jigéen lay gaafam mooy néew ay doom bu dee fas lay gaafam mooy bañ ku ko war xare ci yoonu yàlla ñeen soxna Aïcha da daan weddi hadis boobu wax ne hadis boobu daa wuuteeg maa asaaba min musibatin illa bi idnillah ba tax na mu daan ko weddi wax ne yonente bi waxu ko daa am daal fu yonente bi saxale gaaf mbaa wax li nuru ne daal sax am foo xam ne ko weddi ne gaaf amut mel ne kon nag day doon ñaari addis ñoo xam ne dañu daal di xaw a safaanoonte am na ñuy jéem a dëppale nag ñaari addis ñi ci kaw wax ne jëmmi gaaf ci boppam lu sax la lu am la waaye yonente bi daa bëgg a wane ne amul dara dara loo xam ne mën naa jekki-jekki jeexital ci menn mbir jëmb ji mën naa am gaaf waaye jëmb ji nag du loo xam ne mooy jeexital ci leneen yàlla ci bopp mooy jeexital waaye jëmbi gaaf nga ci boppam du jeexital loolu nag boo ko dee seet kon mbir yëpp noonu la mel leen lu nekk yàlla moo ko sàkk te yàlla mooy jariña mooy lore jëmb ji ci boppam amul jenn jeexit ju mën a def ci jariñ mbaa lor in rustu moom nee nañu noonu la ko daan firee dadaa wax naa innama asbatahu ahadul xadisayni xayru llazi nafaahu l axar id qad nafa ahaduhuma an yakuna li cheyin xadwa wa tasirun fi bacdi l ashya wa asbata fi l axari ma nafaahu fi l axar wala istixaalata fi an yusabiba allahu dararan bi sukkunaa daarin li ba'd al ashqash duna ba'd aw qatah nasl li ba'd an nas bi nikah imra'atin duna ghayriha ibnu sida wax ne ci misal bu ñu ne ci wolof bërepp sangam bay dee la nit man na koo bay dee keneen bay ko bañ a dee bu ñu nee kër sàngam dafa gaaf nit mën na faa dëkk gaaf ka dal ko keneen dëkk fa gaaf ga du ko dal bu ñu nee jigéen sàngam ku ko takk dee wala ku ko takk jeex yaag sa njaboot kenn mën na koo takk loolu dal ko keneen takk ko loola bañ koo dal nga xam ne kon jëmmi gaaf ci bopp ma am na waaye nag ni mbir yëpp la mel rek yàlla moom mooy jeexital ci lu ne waaye amul jenn jëmm joo xam ne mën naa jeexital ci dara dara ku may yàlla kon addis bay saxal gaaf day wane ne gaaf ci boppam kay lu ama am la bay weddi gaaf weddiwul jëmmi gaaf day wane ne gaaf ci boppam du moo am jeexiti boppam di jeexital déedéet yàlla ci boppam mooy kay